Avec ce décret tant entendu paraffé par le président de la République, contresigné par son tout nouveau Premier ministre Sidiki Kaba, la campagne électorale s'ouvre enfin. Mes chers compatriotes d'ici et de la diaspora, je suis prêt à lutter contre la corruption. li nga xam ni mooy farlu mooy defaraat xol yi réconcilier nation bi. Thiès de son sang la liberté du Sénégal. Ils sont 19 à être appelés aux urnes le 24 mars 2024 dans 15 jours. Il est impératif que nous tirions les leçons de cette période sombre. J'ai la République des jeunes.

bi l'élection avec des records à tout point de vue. 700 kilomètres de côte yi liñ ci mën a def bari na réew mu mel ne Singapour moom laa leen jox comme exemple. luyaas bi ni mu toll dinañu jël ay mesures yu radicales def fonds de soutien boo xam ne dina permettre luyaas bi ñu réglementé ko. inédite au regard de la composition incertaine jusqu'ici quant à sa faisabilité. tant Pour la première fois dans l'histoire, les candidats vont rencontrer les électeurs en plein mois de Ramadan, parcourir des kilomètres à l'intérieur du pays. Au départ, chacun se cherche, chacun essaie sortir du lot. Sénégal, loolu muy importé ci parce que ñuy coûté 380 milliards de francs CFA 380 milliards yooyu bu ñu ko defoon ci mbayu Sénégal utiliser phosphate du Sénégal kon Sénégal dootul importer yi Et en deux semaines seulement, il y en a qui multiplient forcément les discours pour se faire une place devant des monuments de la politique. Le président de la République, mooy chef supérieur de la nation. nation des armées d'abord. nu ñu mën a defalee mbay bi mu ñu mu nekk moderne. Et pour cela. dara waral mënu ko loolu ñoo ko budget bu ñu alloué ci mbay mi. d'autres misent sur leur programme espérant convaincre le maximum d'électeurs. fi réew mi toll ci ay jafe-jafe dund ak liggéey am nañu yéene joyanti ko ci yoonu naataange ba ku nekk gis ci boppam. Dans cette course pour la victoire, deux groupes visibles se dégagent. et ceux qui peuvent triompher le soir du 24 mars. Pour commencer à travailler le 4 avril, vous n'avez qu'un seul choix. C'est de... Pour qui L'autre favori, Bassirou Diomaye Faye, substitut du sponsor Sonko condamné est en prison avec lui. Il part déjà avec un handicap. Pour l'instant, il ne peut battre campagne. Sa coalition Diomaye président pour l'instant s'est réuni dans son QG pour tenir le coup. Lorsqu'il sera venu ensemble avec les artisans, comme il l'a toujours dit, comme il l'a toujours fait, j'en suis persuadé qu'on fera le tour du Sénégal. Son état-major, plus fringant sur le terrain, mieux outillé politiquement, fait la campagne à sa place. En face, le candidat du pouvoir, Amadouba. Il démarre à Mbaké il est accueilli par les habitants. Pas beaucoup d'alliés, ni une véritable adhésion vers un même but politique. Seulement une présence mesurée de sa propre coalition, Benobo Kyakar. toutes les forces politiques, liberté, état de droit, le lendemain à Tuaon après la prière, Il rencontre les autorités religieuses avant d'écourter, à la surprise générale, le temps d'une journée sa campagne. Le ton est presque gênant. ñu toog waxtaan waxtaan bu gàtt bu xale de résidence le temps que cortège bi di préparé ndax dama fii ñëwaat sax fii fi sax laay bàyyi cortège bi yëpp dama am rek euh, yitte yu loolu yu war a dox fii mais ñi fi ñi ma àndal ñi fi laa leen di Retour à Dakar. Un malaise qui plane presque sur la tête de tous les candidats à cette présidentielle. Au même moment, à la Cour suprême, le Parti démocratique sénégalais espère avoir gain cause sur sa requête de reporter ou de suspendre la campagne. Finalement, l'espoir s'effrite. Nos requêtes déclarées irrecevables. en conséquence, en termes clairs, ça veut dire que la campagne électorale se poursuit. Alors elle se poursuit. Ici, en clair, le juge suprême renvoie la décision au Conseil constitutionnel en se fondant sur la plénitude de compétences des sept sages en matière électorale. Karim Wade, Mamadou Diop de Croix et compagnie sont expressément déboutés. Dans la nuit, vers les coups de 20h, l'allée qui mène à la prison du Cap Manuel est silencieuse. en silence presque bavard, vu la forte présence ce soir des forces de l'ordre devant la porte principale de la prison. L'opposant Ousmane Sonko et son lieutenant Bassirou Diomaye sont sur le point d'être libérés grâce à une loi d'amnistie adoptée en urgence. Au fil des minutes, la rumeur se précise. À côté, la joie est palpable chez leurs militants. Quatre heures plus tard, les allées de Dakar ici vibrent comme un bourdonnement des seins. Des jeunes venus partout, à la poursuite du véhicule de ceux pour qui ils se sont battus durant des années. Sixième jour de campagne, première apparition publique d'Ousmane Sonko. Une première depuis huit mois. Dans la salle, tous les caciques de la coalition Diomaye Président sont là. Ils sont là pour marquer leur présence, leur appartenance à leur programme politique baptisé Le Projet. Une journée phare de leur démarrage en campagne ensemble, officiellement. Le plus grand danger qui guette le Sénégal aujourd'hui s'appelle Amadouba. Désormais, nous ñëpp xam nañ ni su élection yi jaaree yoon mënul am 15 pour cent ci réew mi. c'est ce projet qui nous fédère tous et qui doit sortir le Sénégal de ce désespoir-là qui envoie ses ses enfants par par par milliers mourir dans les vagues de l'Atlantique. borom kër yi sonn nañu. dafa jot ñu xeex bépp xeetu guerre ak luubal dafa jot ñu jox doomi réew mi gëddëm ba mu mat sëkk. De l'autre côté, sa rencontre avec les Sénégalais lui apporte la vigueur et lui redonne la confiance. Anta Babacar novice en politique, souhaite se positionner au devant. réew mi bis buñ ko joxee jigéen ñi coonoy góor ñi jeex. avenir duñu ko tayle nous sommes trop jeunes et on va prendre nos responsabilités on va se battre. Elle sort les hostilités. surprise, ce duel affiché, Amadouba Diomaye Faye. Inacceptable selon elle, caustique. buñ toogee naan ñu diw mooy diw dem leen voter diw parce que diw mooy diw yow loolu di ko nangu mais ñun depuis kañ nga ñu ñàkkee xel ñàkk xelu bu tool noonu man nag dëgg fu ma ko fekk dama koy wax. fii xam ngeen lu wóor ba wóor mooy Anta Babacar mooy Anta Babacar. Dans cette campagne, les candidats donnent tout ce ko xëccoog benn candidat ci présidentiel benn waa benn bokk yaakaar moom waxuma ko xam naa ne duñ fi am dara. propose des idées. képp ku jël sa doomu réew dugal ci boppam xam-xam. kooku mënoo koo fay moo tax ñun ci réforme boobu ci sunu programme te loolu nag ci sunu programme rek ngeen koy gis ah. sur presque tous les sujets oubliés euh, du régime sortant. suñu nappkat yi suñu gisulee jën ñu jël seeni gaal yi di jël yóbbu xale yi ñu dem ñu dem Espagne wala Italie loolu nag dama bëgg mu dakk mais le duel frontal entre ceux qui incarnent l'opposition et le camp du pouvoir s'intensifie. À deux, Ousmane Sonko exclut Bassirou Diomaye Faye font chemin ensemble. un binôme redoutable qui draine du monde partout où ils vont. wax leen ma dégg Bassirou Diomaye Diomaye président. nekk Ndakaaru maa ngi nekk feneen ndox bi ngay

disponibilité. baykat yi nappkat yi sàmmkat yi xam ne li nga xam ne ñoom ñoo ko ñoo ko yelloo ñu jox leen ko. Mais cette adversité n'exclut pourtant pas l'élégance dans les rapports humains en cette campagne électorale. Beaucoup de rencontres empreintes de chaleur, de courtoisie, disons républicaine.

danañ bokk ñi pour nga nekk président de la République. Une tactique politique pareillement adoptée par Cheikh Tidiane Dièye, dont les partisans appellent à voter Diomaye Faye dès le premier tour. di féliciter le président Diomaye président di wax ni nag benn la Diomaye président la ñuy liggéeyal ñoom ñëpp. Mais le renoncement à tous les deux ne sont pas reçus par le Conseil constitutionnel. Les 19 candidatures sont maintenues.

possibilité et charme. kii sama yaay la. L'envie de plaire est poussée à l'extrême et tous les moyens sont bons. kii di madame Absa Faye. mën naa leen garantir ne que j'incarne parfaitement cette rupture que nous recherchons et que nous appelons de tous nos voeux. Les 19 candidats vont voter ce 24 mars 2024 pour la douzième fois de l'histoire du pays. Objectif. éliant le cinquième président de la République du Sénégal.